nekk ci benn jour bu ma tuddee jour bu historique parce que ñun dañu ameel Mbàkke njukkal parce que Mbàkke defal nañu lépp parce que ab dëkk boo fa jógee jàng fa am fa ay diplôme dem liggéey tukki ñibbisiwaat dëkk ba jox la loo xam ne foo dem moom ngay tiitaroo kon jàpp naa ne yow dëkk bi am na loo ko ameel ci loolu nag moo waral tey mouvement bi ñu teg ko te balaa ñuy teg mouvement bi dafa am ay acte yu concret yu ñu posé ci dëkk bi loolu il faut mu leer ñun ñëwuñu rek ne dañuy ñëw ne dañuy soxla Mbàkke wala dañuy ñëw ni teg suñu mouvement Mbàkke dañuy wane ne ñun li ñuy wut li ñuy mébét ci dëkk bi dëgg la ci ñun Mbàkke ubbil ñu ñu teg fi ay action yu concrète sànq am na ku ko lim euh, ki nga xam ne moo jiite dëkk bi bi mu fi nekkee ñu am yu ñu jàppale ànd ak moom liggéey ko jàppale ko dëkk bi lu ci mel ne ay oto mbari yi ñu indi fii ci dëkk bi daanaka xam naa ne mu ngi wër ci dëkk bi ñun di ko gis hôpital bi ñu def ci ay jéego yu am solo ba ma koy def mam méngoo mi laa waxtaanal mu wax ma li manqué ci hôpital bi yépp ma jël suma xaar sama tànk tooy dem wuti ko indi ko ci indi ko ci ci Mbàkke bi nit ñaa ngi ciy faju di ci nit ñi di gis seen bopp tey ku dem ci Euh, cabinet dentaire bi nekk ci biir hôpital bi di nga xam ne am na lu am solo lu ñu fa def te loolu soulagé na dëkk bi bi loolu weesoo équipe bi nga xam ne moom laa yor di président bi am na ay jéego yu ñu ci dox yu xam ni ñi teg nañ seen bët naam Aline Diouf mii am na lu bari lu mu def te loolu ba tey saa su ne dama koy wax mais ba ñu ñëwee dañoo xam xool fa mu xawoon na sooxee ñun tamit ñu ñu ñu ñu dox ci jënd biis bu mag jox dëkk bi bi ñu defee loolu lépp nag ñu ñu ne nag léegi jot na loolu ñuy def ñu formaliser ko li tubaab di wax formaliser ko parce que mënoo dëkk di def te li ngay def nekkul ci dans un cadre légal ñu ne dañuy tegal suñu mouvement boo xam ni c'est mouvement politique loolu moo waral tey ndaje mi ñu def conférence de presse mais leeral ne lii conférence de presse la lancement bi loolu après lay ñëw parce que mbir mu ne balaa nga koy lancer da nga koy wutal tur tur bi mooy ngeen gis seen ginnaaw nii mooy pour Mbacké ensemble pour Mbacké nag boo ko déggee mooy ñëpp dajaloo pour dëkk bi ñëpp dajaloo pour dëkk bi dajaloo boobu nag lépp dénominateur commun bi mooy luy jëmale kanam Mbacké léegi nag mouvement boobu ñun dañ ko ubbil ñëpp tëjaluñ ko kenn sensibiliser yëpp sensibilité yëpp lañ ko tijjal muy société civile muy tous les partis politiques tous les toutes les associations ñi nga xam ne beneen dénominateur commun kese lañ am muy jëmale dëkk bi kanam donc loolu nag moom moo waraloon tey jii ñu woo presse bi wax leen ne leen ñun jóg nañ pour xal suñu tànk tubéy ak ñi ma àndal ñi ñëpp nga xam ni vraiment c'est des personne de valeur ay nit ñu respecté la ci dëkk bi ñu ñu respecté la ci Sénégal ñu ànd liggéey pour jëmale suñu dëkk jox ko la mu xamoon moom lam la mu amoon bu njëkk parce que bu njëkk Mbàkke euh, daanaka gouvernement bu mës a am Mbàkke diñ ci gis ñaar ba ñetti ministre wala ba juróomi DG directeur généraux ñoo xam ne ñoo ñëpp dañ doon dox pour jëmale Mbàkke kanam di jël doomu Mbàkke ñuy liggéey di amal dëkk bi njariñ dëkk bi ak l'activité économique à Mbàkke dafa doon am da doon bouger de telle sorte que fii daanaka loo fi doon def day jar te bu ñu fàtte ne Mbàkke c'est le deuxième département en terme de population au Sénégal loolu tey jàpp naa ne dafa doon loo xam ne c'est un poids boo xam ne Euh, ñun exploité wu ñi nga xam ne ñoo dëgg exploité wuñ ci ni ñu ko war a exploité parce que dama koy répété waat Mbàkke li mu manqué dafa bari te loolu du yoon Mbàkke tey ndox mu neex sax nit ñi Mbàkke amu ko loolu du yoon stade bi ñuy wax lu mat vingt ans ñi ngi ñu ci rey suñu bopp pour ñu am ko te ba ba jamu tey jii nii kenn mënu ko ci fubal te loolu du loolu c'est pas normal ak yeneen ak yeneen yoo xam ni marché bii nekk ci digg dëkk bi boo ko xoolee tamit sa yaram day daw parce que Mbàkke war na dépasser foofu te ñun li gën a metti mooy potentiel bi Mbacké am la commune avec sa proximité ay Touba nu on l'a pas exploité te loolu vision moo koy def te ñun suñu mouvement bi jug nañ pour xool nan lañ mën a sur tous les plans nan lañ mën a jàppale dëkk bi ba tey ndaw ñi am liggéey am xëy jigéen ñi mën a def seen commerce euh, euh, santé bi mu gën a mën a baax parce que Mbacké ba tey amul hôpital tey man indi naa fi ñaari machine jalise parce que dañ ma waxoon ne ma hôpital bi euh, Mbacké amul jalise mais machine jalise ba léegi je parle sous le témoignage de Grand Mengo munuñu ko utiliser parce que Mbacké amul hôpital amul structure bu mën a accueillir jalise je pense que loolu c'est extrêmement grave bu ñu bëggee am ay maladies am dialyse dañuy dem Touba wala ñu dem Dakar wala ñu dem beneen dëkk loolu je pense que loolu loolu tey genre euh, xeex yu mel noonu moom la mouvement bi jóg pour xeex ko pour jox Mbàkke li nga xam ne moom la moom mu am ko sur le euh, au niveau du Sénégal donc loolu daal moo doon tey kàddu yi nga xamante ne si bëggoon naa ko jëmale ci dëkk bi pour wax leen leen à partir d'aujourd'hui am na mouvement bu tudd ensemble pour Mbàkke pour dajale doomi Mbàkke yépp bu jug pour politique dama koy leeral ñun dañoo jug pour politique parce que xam nañ ne politique mooy jëmale dëkk kanam